waaye yéen laay xaar de bu ngeen paree ñu kon mbokk internet ñu ngeen di bëgg bu baax a baax mu mel ni ki nag comme ni muy amee rek depuis boobu ba tey ñeenti mbër yi ku nekk tey def nga sa point de presse Bombardier def na Reug Reug def na ah fépp fu doomu Tëngéej nekk di la ñaanal jàmm di ko sàkku si yow tey nag ñu fekk si mbër bi moy seen mbeur mu mag mom ak doomu dangu loolu la yalla dogal ak seen ay rak yiñ fi nekkal parce tamit tagge bo gis amna jappal jàppal diw sëriñ yaakaar naa nag ama neex bo xamne 2018 lañ ko mujjé gis mu bëree mom ak boy bawal ca Amadou Bari yalla dogal nga mon ci ndam depuis lor nak ama neex gisatuñ ko ci lamb mu tak ngemb mu nekk digënté États-Unis ak Sénégal tay mu togaat ba jëlaat avance jam production wara a le 24 décembre ama neex ñu ngi lay nuyu di li ziar wa 11 billahi mina seytaani rajim bismillahir rahmanir rahim maa ngi sant yàlla bu baax di julli si yonante bi sallallahu alayhi wa di sant sama ñaar waajur avant tout nag mooy wax damay ñaanal avant wax si ñaar ñaar muy maa ngi ñaanal sama coach Papa Yada di ko ñaanal yàlla yërëm ko xaar ko àjjana di ñaanal tamit Papa Yada mu ndaw yalla yeureum ko xaar ko aljana ak sama ndijaay sukki job ak kep ko xamanteni tay ji jii nga adina ma ngi lay ñaanal yalla yeureum la malaka yërmande teru amon nañ fi dej dej tay nak suñu ben yaay ros mo gañu ñu koy jale dun euh, dudu boy ak abis abbi waaw di nit ki nak amul loolu ay mbokam ci mm-hmm. ma fekk tay ni fi la juddo mm-hmm. fi la magge mm-hmm. fi la dege daal di sant sama coach forman ak lay. Akara di sant sama wa Ikiri a Babou Collé di sant sama wa Ikiri tay ñi nek sama ginnaw ñom ñoo may dooleel ñoom ñooy tax may daan bébé jéen si cantonu suñu borom ñi nek sama ginnaw ñoo may doolal moo limee nag damay juum waaw ñepp rek sama wa Ikiri mhm. sumay rakka du sax Ikiri sama rakka la ñom ñu ñëpp ño bokk maam mhm. ño bokk ndayax ba ñu ñep bon di gërëm waa jokul tëngëj mhm. coxo ñep di gërëm fukki pencee ñaar yépp di leen wax maa ngi jëm si bés bu mag di ñaan yàlla yàlla suturaal ma mais ma ndam si barke Seydina Mouhamed waaw làmb la 2018 laa gëj a bëre maa ngi samay entraînement tey Bébé Diène la ma yàlla booleel ndam rek ci kàntanu suñu nga ne Bébé Diène la yàlla booleel ndam rek loolu nga wax. waaw te xale bi nga xam ne moom nga ko seqal. Mhm. diiraa bi nga toogee yow bëriwoo. Mhm. moment boobu mu ngi rañe ci mbappat jël drapeau chef de def lu bare bari ci diggante bi nga toogee yow ba daan fi ay mbër ay champion ba tey lamb boole ko ak yow gis nga bëri bër ki dem fi mu mujjee ak Baye Mandione mhm. tey nga lekk avance am ci yan maanaam ci loo sukkandiku ba ne ndam rek bëre nga sukkandiku doole nga sukkandiku wala ci yan capacité dama ko dàq bëre yaa dàq bëre Bébé Diène ëpp ko doole daa ëpp doole Bébé Diène dàq xaa xeex yaa ko dàq xeex bu jour baax waaw di nga gis xeex bu baax maa ko jiitu si mbap maa ko jiitu si làmb. yaa ko ku la jiitu si nekkul lëndam nag moo lay wax fi ngay toog maa ngi gërëm Paka Boy ah, ñaamu ndaw. Euh, kii ñaam mbay. Ah. ñaam mbay di leen wax ñu ñëw jàpp si combat bi ah meeru Tëngéej. mais ah, sama gars yi nga xam ne day mbëkki woon ba léegi teeruñu. yàlla nañ teer ak jàmm. tey lañ am 31 jours si géej. waaye loolu doy na waar di. wóor na yàlla maintenant suñuy rakka suñuy supporter tey ñu mbëkki woon am nañ 31 jours tey si géej gi. kenn gisu leen kenn xamu leen maa ngi leen di ñaanal yàlla nit leen. waaw di wax na la Babacar bu la jiitu si néeg bu lëndëm moo tax fi ngay toog. mais yow boo nee yaa ko am booy xale bi di Bébé doole te buñ xoolee yaa ko mag si at. Mhm. yaa ko jëkk a bëree. Mhm. nga xëy tey taxaw na yaa ko ëpp doole mu gën la féete xale. Mhm. ndax loolu dang ko tek ci lo liggey wala dang ko gis xamni ki mako gëna paré ci côté doole ma gëna paré ci lepp ci si sunu borom pour wax ji fene ma mom bokku ñu lamba téré di rek dafa def performance wa mëna lamba téré di lamba bu téré di won kon ma mom duñ bëré mais nak luy la yalla dogal ñu ngi ñaan yalla sutural ñu may ñu ndam di gëreum wa tëngeej mais xex xeexkat li mujj daan de muy bàyyi ñoo amul problème non té nga yaa ko dàq xeex waaw njoon sama mak la dina ko fayu ci kantanu sunu borom nga fayal njoon wa di la wax di o wa tëngeej ñëpp tëngëj fukki pencee ñaari bàyyiwuma kenn du oo Mame Balla mu jàpp si combat bi bu baax baax du oo May Amdi do o Ibou Mar o oo ñi nga xamante ni tey Alim Mar maa ngi koy oo mu ñëw jàpp si combat bi ah waasuuf waasuuf waasuuf maa ngi bu grand ba waasuuf maa ngi koy mu si combat bi bu baax am solo mais ba ah, ama neex mhm. ñu wax ci combat parce que Bébé Diène mhm. seen ñaar seen combat dafa bëri tension bu ci am mhm. bi ngeen TFM soowoo ngeen fa nga ne ko bu ma laal ba ëpp mbëkkantaam fa sa dernière sortie nga ne bu ma laalaatee dama koy jam waaw nee na tamit yaa ko jiiñ mhm. ne tey mandi xaw ma day sàcc affaire yu mel ni ki noonu non ma ne bu la laalaatee ko jam boobu non ma ne waaw lu na fànga kenn ko jiix waaw wax wax wax waxaat bari wax la man li ma koy wax passé naa lëfal boobu maa ngi si beneen lëfal yaa may dégg làmb moo ñu boole ku nekk CNG dafa wax na fi ngay taxaw fii mooy sa coin taxawal foofu yaa n'est-ce pas kon nag taxaw si coin mhm. amul droit di ñëw si man di ma laal di ma bëmax mhm. yaa may dégg man signature naa mbër mu ne mosuma dépassé kenn mhm. mosuma yere wane ñàkk fayda wala ma wane disip ñàkk discipline du ma ko def ku ne dama lay jox sa wàccuwaay na taxaw fi mu taxaw lan lay bougé mel ni ku ku sax mata loolu moom la I don't ko jiiñ man loolu sama yoon nekku si wax naa ko ba pare jéem naa moom xam na li ma koy wax du dof moom li ma koy wax xam na ko bu baax du dof. ko bu ñu wéetoon maax moom rek mu mun a ko tëddal mu tëddal. waa noo dafa amul discipline. nit da ngay am respect. respecté nit ñi ñun ñëpp ay doomu aadama lañ amul fii nga dëkk amul ñun ñëpp ay senegalal lañ ay doomu aadama lañ kon doomu aadama da nga koy respecté jox ko cër man dama bëgg ku ma jox cër. mais mom joxuma cieur joxuma cër donc bu jour ba lay lay comprendre. bu jour ba wa gis na fi nga bëreeg ay mbeur yu bare bare bare dan len amna ci ñoo xamne jël yu gaaw nga len dan ndax sa combat bi meun nañu xaar jël bi gaaw. non maax mom il faut ñu xex combat bi mom du yomb wa euh, wa maax mom mom il faut ñu xex man ta ñaar wallahi azim. est-ce que dina xex billahi wallahi tallahi maax mom il faut ñu xex wallahi lima la kañ wax muy dañ so ma gis ma wax dara mu dañ

si kàttanu suñu borom wallaahi azim neex lii fa rek ma laaj ko si ku gëj a bëre 2018 yaakaar naa la gëj a bëre 2018 la kay muy bëre xale bi nga xamante yaakaar naa dafa dafa retour bu am solo explosif mhm. bëre ki nga xamante ni mooy Baye Mandione gis ngeen mu bëreeg moom keroog yóbbu ko à l'égir daan ko jël bu rëy euh, tey mu ñëw jël amal nga xam ne gëj na bëri est-ce que amal neex xam ne importance combat maanaam daan di oh, liggéey est-ce que xam ne oh. leen mu defal si yoonu keneen ma ne làmb la rek du ma ngaaka si daan naa mbër mu ne ku ma xamul nag da may ooy eh kooku jaaxalu ma jaaxalu ma. Mhm. moom ko muy jël. waaw kii nga am muy jël. waaw amul problème na na na na na rek yàlla baax na mhm. na jàpp rek. waa mais moom loolu da nga ne loolu la am lan loolu laa am mu fàtte ko. Ah, waaw amul problème naka fàtta ma dem feneen rek. ndax man man bon la ma am fii pexe bari na. <laughs> man la ma am si pexe du ma toog fii di ko wax ñaata combat la am ku nekk li la daane ah li daane sa bokkul comme te moom nag loolu la jàpp moom na jàpp rek après lay comprendre. Ah? sa waay gis nga man déglu ma parce que tamit a bëre. des a a bëre yooyu amul fii. xam nga la moo fi am. sa waa écrit di contact. di dem musculation di dem din loolu moo fi ne te maa ngi lekk-lekk bu baax maa ngi sant yàlla maa ngi si condition yu baax yaa may dégg man nekkum kenn tëjuma woon man ci am néeg rek na ma c'est-à-dire kenn tëjuma woon si néeg man maa ngi woon dox sama dox waaw non dama lay wax rek non ma ne man laa wax man non ma ne amul fii yàlla moo yor ñëpp dama ne man kenn tëjuma woon si néeg loolu laa di ma surveiller man loolu laa la wax waaw man loolu rek laa la wax waaw ma ne la man li ma man def naa ko entraîné naa pare naa si lépp maa ngi ñaan yàlla suturaal ma mais ma ndam si kantanu suñu borom maa bébé jéen du sax làmba dun ay morom maax moom làmba tërëdi li ma lay wax xam nga ko dégg-dégg waratul jàng la si biir moo war ah way ah, ah, ah, lan nga war a mën a wal bisu le 24 pour ñu xam ne kat lii du làmb dóor ba mu tëdd ah waaw dóor ba mu tëdd rek dóor bébé jéen ba mu ba mu tëdd man nga loolu waaw baax ba jour ba. ah. kii téye leen mu jël na dëggal boppam rek moom na taxaw dëggal boppam ñu bëre ñu xeex raak maa ngi koy dégg mu ne moom mu ne moom man. man du taxaw xeexaax moom moom na taxaw xeex na taxaw li muy wax noonu barki Seydina Muhammad laa la waatal du ma wax muy dañ na taxaw dëggal boppam ñu xeex wallahi azim mais su ngeen taxaso ci beure nak suñu jàkka la tim jàkka ji kay billahi damay taxaw deugal sama bop ñu xé raak barki alquran combat bi jihad la dafa am lu mu bëgg wone wallahi azim sama morom dañ dam ba ma fi ta du ñaka jom xeyna lu yalla dogal ay eh, ana balance mais dama na la amul problème yalla baxna combat mobilisation bi no no ci taxaw gis nga lébu yi parce que mom day day mobiliser bébé gis nga nun yow xam nga nun nun xam nga seede yàlla seede yalla kon gars yi nañ koo tagge foofu de. waaw fii la yem. waaw fii la yem de. waaw di gërëm